mbokki Sénégal mbokki réew mi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 76 844 43 44 wala ci 76 844 43 44 ma ne mbokk yi xippi leen seen i bët te tàggoo ki nax ko mën laa ki koy jéem te ki ne fàng dang ne maa ngi nii nëbbatul ay mbiram saraax la ñuy def ci xew-xewu làmb tey fekk fa écurie yu mag ya Fass ak Ndakaaru ña fa séenee booloo nekk benn booloo Fass ak Ndakaaru ku ko doon laam-laamee dama ne xippil say bët te xam ne léegi mu nekk sunu papa Moustapha Guèye ak sunu papa Kati seen waxtaan wa sori na léegi jëf ya nekk moom Moustapha Guèye le deuxième tigre de Fass sax la ko waroon ca ndaje moomee def na ko mbooleem mbër ya fare woon ca Fass dajale na leen def ak ñoom ab réunion ba fa séenee tàmbale ndaje Moustapha Gueye moomee Forza la fa gis Serigne Ndiaye 2 Baara Ndiaye ak général bu dee Gris Bordeaux ak Gris 2 ak Lac Rose ak Pam Ndoy kenn gisu leen ca ndaje ma keroog ca altine jale Moustapha Gueye woote ab réunion daal waxtaan ak gone ya ba ñu noppee ca waxtaan yi nag entraînement yi dañ koo fas yéene démarré ni ki janvier bii ñu dëgmal ku wax entraînement wax entraînement bi nga xam ne boo fa demee da nga fa fekk mbëri ndakaaru fekk fa mbëri a fas yéene booloo nekk benn di xàcceendoo ko tegandoo li ni mel nag mooy fondateur de l'écurie ndakaaru la mu xamle sax mooy bile écurie bu bees boo moytu dana jël turu Fass ndakaaru ñun daal njort nañ ne noonee lañ ko fa séene tudde ci biir fusion boobee nag danoo bëggoon Moustapha Gueye nekk directeur technique ba man ma nekk entraîneur principal waaye la ma leen xamal te sàkk ko ci ñoom mooy ñun ñëpp ñu nekk ay technicien bu ko defee ku ci nekk la nga am ci xam-xam nga indil ko gone yi rax ca dooli moom Père Kati Diop am ne d'accordu ñu woon sax ci fusion bi waaye ne man maay ndakaaru man maay le père fondateur moo waral bi kenn ku ma ci waxtaanal mbooleem ñi nekkoon samay leen a képp waaye daal dama bëgg ñu xam ne écurie ak Ndakaaru danañ booloo nekk benn bu ñu jàllee ca huis clos ba ndax jig na làmbam déet ndax danañ ko adopté déet journal sunu làmb xëy na def ci micro trottoir waaye la ëpp ci amateur làmb yi li ñoo xam ne mooy d'accord ñu ci bile formule bu ñu sañoon làmb dellu ca na mu nekkoon ñuy bëre di gis amateur yi supporters yi nekk ci kaw tribune yi di tàcc seeni mbër ak di leen pousser di leen may doole li ni daal mooy firndeel ne wii ku la amateur yi ko benn yoon ci làmb ji bu ñu jàllee ci président Bira ak mission ya koy xaar bokk na ci CRG yi mu war a samp ci mbooleem région yi nekk ci réew mi li ni mel nag le ministre des sports Matar Ba moo ko sàkku woon ci moom gannaaw dañuy samp ay CRG ci mbooleem région yi nekk ci réew mi benn région képp la ñu gis ne amagul CRG muy Dakar bu ñu waxee CRG nag wax comité régional de gestion de la lutte mais nam Dakar képp ci amagul CRG loolu liggéey bu rëy waaye ku samp ab ci région faaw ku wax CDG faw nga wax comité départemental de gestion kon bu ñu sampalee Dakar CDG faw yeneen département yi ci mel ni Dakar Rufisque Pikine ak yépp am ay CDG yile département bu ñu amee ay CDG faw arrondissement yi am ay CAG mooy comité d'arrondissement de gestion de la lutte ku wax arrondissement yi ci Dakar faw nga wax Almadies Dakar Plateau ak Grand Dakar ak Grand Dakar tuddaali ci Parcelles Assainies li ni mel nag la journal ba xam li mooy a plateau Grand Dakar Parcelles Assainies ndax sàmpaleen ay CAG dana yombam déet en tout mel daal mission la boo xam ne le ministre Matar Ba moo ko jël jébbal ko président Bira ngir mu matale ko noonee la ñuy xippee suñuy gët di xool yeen salon la ciy teg jërë ngeen jëf mbokk yi li moo li gën a fës ci yéene gaay bi ñu leen jox di jaay ba ëllëg incha allah